wanga tubabe je ne dama ke so pele ko ni dine jigen dine bo mu mu dafa bari façon concours sa bari dem solo ji ci cheikh ibrahim mondial couture ngir mëna téro suñu ujaaj taral bu dagan ay bas tay mam bëri mbubu ni ginne jigéen ñi la yàlla taal ndax bëccëg la ndar waaye bu guddee ñu leer nañ taaru ba taaru sañse ba mu baax dox dox bu ndaw ñu wax wax bu sew ginne Maymuna ak ginne Mariama ginne Bintu ku nekk sa yoonu sañse ginnaaw ci aj lañu jóge dinañu dem aji ijaab yi ca galerie di ijaab ngir gën yiwul sunu yoon te ibaadu fashion duñu ci seetaan boo soppalikoo jëlal samay bët mu door seetu ci néeg bi seetu ci waañ bi seetu ci saak bi seetu sa xarit bëgg seetu nit mu ne yow wàññeeku sa seet daj wi ak fenn ibaadu bu fës journaliste bu mag dina dévoiler li muur mot ibaadu ne Arabie Saoudite ku ne Arabie Saoudite ne Asie moo tax mu nar a tertu suñu jaaj yi ak Coupe d'Asie Mbaye Fashion nar a daw Safa ak Marwa ci ginnaaw modèlu Elisab bii Bismillah ci concours sañse retour de la mer tey nga mer marxaban bikum ci seen plateau concours sañse spécial retour de la Mecque di suñu ujaaj ji di leen masawu coono di ñaan suñu boroom lépp loo xam ne ñaan nañ ko rek ci bërëb bu sell googu yàlla nangul ñu ko te nangul leen seen aj Euh, di jaajëfal nag ñoo xam ne jaar nañ fi léegi def collection hijab bu rafet googu muy lee deux sœurs kenn ki nekk Ndakaaru kenn ki nekk Canada muy Khady Ndiaye ak Aïcha nekk fii ci Parcelles Assainies unité 9. tàccul leen ma Khady Ndiaye mi fi ne ana di ko jaajëfal bu baax parce que seetaan nañu benn yoon di remercier aussi Cheikhouna euh, naar nekk ba Tëngéej génn fii ci robbu taay maam gii. maa ngi koy jaajëfal gu baax di remercier aussi gàmmu jaxate mi nga xam ne moo génn ci coiffure bi bu loolu weesoo nag waxoon naa leen ko ca njalbeen ba man damaa am kuddu bant yu wóor mu di samay membre di jury bi Amadou Diop Da Fashion Yaay Ndiir Yaay Design Amadou Diop tey moom duma la wax dara dama lay dalalaatu jàmm rek ci plateau Concours Sagnsé noo def. maa ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax tey moom danga nga sellal da yiwal kon nag waroo mën a tooñ ndax ku ku jóg dajale ijaab di dalal ñu jógee mag kon da nga war a sellal da nga war a yiwal te boo jógee ci lii da nga continuer ci nii rek dégg loolu lu ñuy waxaat la Yaye Ndir nuyu naa la. Mastou maa ngi lay fay. dalal ak jam ci plateau concours sañse merci merci mhm. beaucoup. mang lay mhm. maa lay fay bu baax. Mhm. di la wax ne Mang ngi si muuraay bi. jek na waaw jekk na moom. <laughs> comme ni ko concours sañse di ko def saa su ne euh, mooy dañuy tambali ci suñu rubrique concours bi concours bi nag juróom-ñetti créateur ñoo membre du jury bi ñeent lañ ci nar a tànn di fàttali critères yi mooy originalité coupe ak finition ba tey ñu ngi ci phase présélection bi dama leen di bàyyi rek ñu xool élément concours bi. lu concours sañse di gën a dem tailleur yi di yokk tey suñu concours bi dafa yokk taar gën a tar ndax kenn ci juróom-ñetti créateur yi di jongante maydu sa morom dara ñenn ñi seen créativité yóbbu leen ci yére tubaab ñenn ñi toog uuf ñeneen ñi gëstu démb delloo taymaam originalité lépp ngir suñu jury bi joxe loxo. numéro 1. moom jigéen la jiital ci géew bi solal ko robe bustier bazin jaune def ci broderie 217 multicolore ak strass ngir mu am seen teg ci xale bu góor bu tendance tegu ci temps ak demi saison lin blanc ci kaw pantalon super sang ci suuf moom nee na la beauté est dans la simplicité. numéro 2. yoonu sañse kenn dootul di cristal moom tamit benn couple la solal yaakaar couple bu am dégg-dégg ndax sañse été dafa am ku jigéen ki daagu ak robutil bu ñuul bu ñu doublé ak tissu moulant ku góor gi ànd ak moom ci benn kibaa costume africain filafil bu am manche coupe veste suñu couple bii ñoo ànd ak été waañ weeg sañ taj wi ak feemam takkusaan takkusaan ay baas tay maam bëri mbubu ñi jinne numéro 3 Anne Mbara Couture kii moom dafa firndeel enracinement et ouverture dafa jël li mu moom boole ko ak li mu jégaani feneen ngir créer ay modèle yu kenn dul naatam dafa njëkk jël ben tissu ak jean léger def ko costume bu téku ci temps ñu naan dëkkawaay mu toftal ci faux menton de maréchal bu bëri galon ñoko ko fi waxoon sañse amul frontière. ak jinne Mariama jinne bintou jinne numéro 4 numéro 4 Guèye et Frères ku wax été wax couleur ku wax couleur sa xel dem ci wax moo tax Guèye et Frères delloo wax su njukkeel ci anam yi jox ñaari xale yu jigéen ay short yu méngoo ak jamono ba pare tegal leen ci ay eau yu fashion kenn ki sàlloo marinière keneen ki feelu ko ak ñaari fente ak manche 3 quarts cay xale été soppalikoo jëlal samay bët ñuy toog seetu ci nekk bi numéro 5 Babacar Fashion Babacar Fashion wala Babacar Fashion ndax kii moom da nga koy yaakaaree fii mu fëlee feneen xoolal ma ensemble wax si taille basse bii ni mu bëree melo nu ko neex lay mel robe cérémonie bi tamit ne ko dandu ma gesner ak til fu nu àndee ñëpp nangu daw raw ci façon bii ku doon créativité Babacar Fashion bi ngi nii day baas day mam bëri mbubu nii jinne jigéeni Sénégal la yàlla taal ndax bëccëg la ndar kam waaye bu guddee ñu leer naan taaru ba numéro 6 Biye Mbaye saa su concours bi géewee am ko wane pété ngir bañ a wàññi wërsëgam moo tax kii moom jigéen ñi la tàllal loxo ki ñëkk nangu mu defal robe Ganila vert xajamal ko ak broderie 217 couleur orange ki ci topp mu sargalee ko taille moccasine bu am garniture brodé ak jour sañse daal day fës numéro 7 sopp nag waykat bi nee na jigéen daal jinne sopp na bi ne jigen dal ray-ray te jëfee na ndax ñaari tay baas yu lerax-leraxi le ci kon benn bi nekk couleur vert jupe travailler ak paye benen bi di rouge ficha jupe ak manche évasé, bu ñu def strass ba muy melax tay baas tay strass numéro 8. Balla création ku nek ak sa tendance Balla création mom dafa xër ci robe motax mu indil ñu ci ñaar ben robe bustier saumon ben manche bu ñu 217 Bamita, muy Ben ak ben bu dentelle rouge manche éléphant doublure crêpe soie ak robe yi dara du yomb. xalaat lii ñent ñeent ñoo nar a suñu jury yi amaat ngeen xew mu rëy. Yaay Ndiir ginaaw bu ñu gisee éléments yi xale yi ñii di jongante juróom-ñetti créateurs yi tey lan moo ci sa euh, impression tey. Euh, Ndeye astu euh, gis naa ne vraiment góorgóorlu nañu. Mhm. am na ñoo xam ne créé nañu création bi mi ngi fi mhm. am na affaire yoo xam ne des na par exemple euh, bu ma xoolee euh, gis naa ne daal dafa bëri bagage. te ñaw moom lu mu gën a simple gën a rafet. mais ñaw boo xam ne da ngay chargé jupe bi chargé yére bi. Mhm. loolu vraiment euh, war nañ ko seetaat. mais liñ si mën def nañ ko ba ñeent ñi nga xam ne am nañ si ñoom yaakaar génn nañ leen. Amadou Diop. waaw astu li yaay wax rek foofu laay euh, mottali mooy euh, euh, groupe bi ñu am nii cette fois-ci mhm. am nañ ci yaakaar parce que sélection bi ñu def léegi nii mhm. jafewul woon comme yi nga xamante ne ñoo jàlloon précédent donc nag comme li yaay wax léegi mhm. xale yi nag nañu éviter bu baax a baax ñaw yi ñi nga xamante ne lii dañ koy wax pour ñi nga xam ñooy ñu ñëw ci présélection yi. Mhm. di ñaw jàpp yére surchargé ko ak ay garniture ak ay paillettes. Mhm. loolu taxul jóg concours bi. Mhm. yére ñaw bi lu mu gën a simple. nga travailler sa textile travailler sa coupe. loolu la ñuy ciy recherche daal dem ci création bi dem ci originalité bi dem ci finition bi comme ni nga ko waxee tantôt. donc nag cette fois si aussi euh, yombul woon. mais aussi euh, tànn bi jafewul won aussi jafewul won cette fois ci dañu ñëw rek xol vraiment huit d'office gis nañ ñi nga xamantene war nañu mëna dem continuer saison bi ci carton yàlla yaay dañu gis légui mode bi euh, comme niko Amadou waxé légui garniture bi da ci ëpp ba finalement tissu bi ci bopam doo ko gis ndax loolu mooy tendance bu bees bi wala bon astu loolu damay wax ne euh, du ñëpp ñooy liggéey noonu. te du ñëpp aussi ñooy solo noonu. Mhm. am na ñoo xam ne bëgg nañ ba léegi lu simple loo xam ne vraiment buñ ko solee dinañ si gis seen bopp. Mhm. am na ñoo xam ne nag tant que feesul wala bëriwul ay affaires yi ay fu nañu génne fa ay ay ay ay ay bagages. Mhm. loolu bu ci nekkul ñaw bi du leen neex. donc problème de goût la quoi. problème de goût la. ba pare euh, des fois ça dépend ci milieu yi aussi. waaw mais man gëm naa ne ñiy def yu fees yooyu ñu ngi ciy mhm. génn. mais buñ ko wàññi woon. Mhm. vraiment dina dina baax si ñëpp. Amadou loo gis ci mode populaire bi jamono ju ñu toll nii. waaw xam nga mode moom mooy li nga xamante ne moo xew si jamono rek. Mhm. ak euh, fi ñu koy solee. ak moment bi ñu koy sol. ak euh, ñi koy sol aussi. te boo actuellement euh, dafa le ci mode sénégalaise mhm. garniture yére ñu jël ko garnir mhm. mais aussi les blogs qui rek dafa am règle

luñ ko bëgg bëgg tamit du loolu mooy doon liy wéy donc nag euh, xëy na paaru créateurs yi couturiers yi daf ci am mhm. parce que tey bu fekkee ne client bi dafa ñëw di mhm. lu ci yow mhm. war nga ko mën na cadré nga xamal ko ne ko vraiment euh, ay paillettes ay garniture dafa am moment dafa am heure dafa am mhm. lieu mhm. xam nga parce que do ñëw ci naaj bu tàng jër bëccëgu ndar kam sol paillette muy tàkki-tàkki te tàkk-tàkk bi tam sincèrement bari na quoi buñ ko gënoon dal dosé ko tuuti wàññi ko uh-huh, uh-huh. ñaw bi dina gëna taru quoi waaw dama koy tëjee comme ni ko nasaraan yi di waxee rek les goûts et les couleurs ne se discutent pas bés dama demoon géej gi di fuur di baax ndax jàpp sama xol tuur sama yërmande teg sama portable bii ñu sàcc ma mer ba sambara tombe lambara natuma sama sàcc dama ko ne jàkk daal di bu sama àdduna tukki gisaa si kay iPhone 5 géej di fuur di baax ndax jàpp sama xol tuur sama yërmande teg sama portal bii ñu sax ba mer ba sàmbara tombe daal lambara yàlla natuma sama sàcc dama ko ne jàkk daal di ñàkk fookaay bu tuuti sama àdduna tukki gisaa kay man zinc gënal ay man ci lu baax lañ ko xamee ibra fall ñëw wuyu turam ci def lu baax ñaw lu rafet ñaw lu tegu ci temps ba tax nañu koy wooyee le cheikh de la haute couture jëf jël lañuy wax ibra fall ndax yaa ngi may dégg waaw salaamaaleykum nafsu xam nga ni sama wooyee mu wuyu la waay waaw waa sénégal waa àdduna maa ngi leen di nuyu seen benn doom ibra fall mondial couture moo leen di nuyu fas yéene indi nak ay model yu doy war yo xamni nak ñu dem xol ko te ñew waaw nasu gis nga nak tay nak dama la gënal ci ay model yu simple rek ku ne xamni ni fim nekk ni été lañ nekk te dafa tang motax ma gënal ci model yu simple rek li bo xolé jasner la rek waaw tay mom dama leen ko oyofal lepp rek bi jasner bu weex la ma laal ci til mélanger lako donc non la lako defaree dal nasu bi mom jasner la ba nga xamni Eh, dañ ko def 217 ku na xam na ne essence bi 217 nek na lo xam ne xalé yu jigéen bëgg nañ ko trop def ko 217 defaral ko ñaari volant ñaw ko nak mint couleur genn ci couleur yo xam ni moy couleur yu rafet la parce que tissu bu nek rek ak couleur tissu bu nek ak fil couleur fil yu koy genné donc motax bi ñu genné ko nonu quoi dox dox bu ndaw yu wax wax ju sew ginne may mun ak ginne mariama ginne bintoo ginne fa nasu bi nag moom jasneer bu zone boo xam ni dañ ko def daamine multicolore mais daamine bi nag ñu bëri dañuy laajte ndax garniture la wala daamine la fekk daamine la daamine 217 ñun ñoo ko def def ko ay fleur mu nekk nag robe bi nga xam ne robe bu tubaabi la robe moom mën nga dem fu nekk mën na nekk tenue de ville mën nga ci dem xew bon mën nga ci dem lépp ko ñam di ngiwul ñoo saf loxo jaagar jaagar nekk jasneer bu zone rek ma def ci grand boobu ku ne xam ne nag grand boobu léegi moom nekk na feem yoo xam ne léegi xale da koy sol mag la koy sol boo xoolee dàbbin mii rek xam ni bu defee grand boobu nga kontaan bu defee teebaas nga kontaan waaw noonu lañ ko defee def ko jaune def ci daamine broderie bu noir donc mu nekk jaune noir donc bii jasneer la jasneer bu ñu ñëw def ko garniture donc mu nekk li nga xam ne ñëw bu ñu créer la defaral ko ay machinette vraiment dal liggéey nañ ko liggéey liggéey profet dal daal yow wàññeeg seen seen taj wi ak seen moom takusaan takusaan tay bas tay mam bari mbubu ni ñi ki ken senegal le yalla daal donc bi ne bu vert la ñu def ci 217 bo xamni medical lañ ko def wa génn ci nak ay fleur manche dañu jël ci comme fleur yi nek ci tissu bi rek ñu génn ci masse waaye def ko sama ay bop mi bi nak dafa nek li nga xamni ne xew la nga boy def sa xew wala nga def sa mariage soko ko mom do na am lu bari quoi wa di len wax ni nak euh, ñun ku ñu bëgg joindre rek mën nga ñu fekk ñu ngi Guédiawaye Mass Sam en face maire bi donc suñu numéro téléphone mi ngi nekk 77 942 37 61 wala aussi mën nga ñu fekk ci internet bi ah, ñu ci facebook bi am sur internet tamit www.mondialcouture.com nafsu balaa may quitté aussi dinaa sant bu baax a baax sama gorob sama gorobu ñaawul bi yasin nga xam ne tey këram laa nekk nii waaw di ko ñaanal bu baax a baax di ko ñaan yàlla gudd fan ak jëkkëram borom taw feex ñaanal may ko gudd fan may ko ak aussi di nuyu sama amouré sama jabar maa ngi koy nuyu di ko wax bonne fête ak sama doom Medoun ah, aussi maa ngi baalu ak eh, àdduna yëpp surtout nag di wax waa waa concours sañse ah vraiment mu nekk concours boo xam ay xale am jom laa fi gis xale yu mën liggéey ah donc maa ngi leen souhaiter bonne fête concours que le gagnant ah. bi ñëw na dafa ba yëmbal ku naan ci ju mu jël xew mi yëpp ko ku naan bu Couture paap taxaw ko ci bësam ju taaru googu waaye li ma ci jaaxal mooy Adja moom kañ la jóge màkk ku ayewal sa momé bis bi ñëpp doon xaar nak yeksi na muy besu kan koku moy Adja Mbaye di rakk ci Marème Mbaye nak doomu ndeyu oratio Adja Mbaye kan mom moy chéri Khadim Fall mi nga xamantene ni moko jël rek duggal ko ci bir xolam daat koy téralé bis bu reuy bi koku moy ñaarel xaritu jëkkëram damay dugg ci bir nak parce que daf may neex may jakarlo xalé yi sañsé ci bir concours sañsé ma nga ci bir daal di neex bu tayee nga mer bu subaa nga tubaabe jeune di ma génn soppale ko ñi jinne jigéen daal jinne boo xefee mu poosa nga xifi mu gërëfe am bët ami weeg du karaw ñi jinne waañ weeg seen seem taj wi ak feemam tàkkusaan tàkkusaan tay baas tay maam bëri mbubu ni jinne jigéen ñi la yàlla taal ndax bëccëg la ndar waaye bu guddee ñu leer nañ kaaru ba kaaru sañse ba mu baax dox dox bu ndaw yu wax wax ju sew jinne Maymuna ak jinne Mariama jinne Bintu All bufus sama njëkk pas waaw parce que aw pun seen fay. makan, begini nag bawu ma kenn. bëgg nañ ma jàppale nañ son nañ ci man trop wax dëgg di gërëm nag sama jëkkër ji parce que sagal na ma trop. mooy faal bi mu mën teral. nama, dëgg la. maa ngi koy bu baax wax dëgg sagal na ma na ma. te ko it. Ah, ci sañse bi ci suba ba yakarna ni kuy sa xew dina dem laccé ji dé nastu ma ngi tejj di délo sa micro di wax né nak euh, li le bëss bi ñëw na indi woon fi nga xamante ni rek moy yëmbal kon nak ba benen émission inshallah ki may na ra tuddu ni fierté Sénégal la fierté média bi la fierté islam la mo fi ñëk taxal premier salon des femmes voilées di yëngu nak ci walum ijab umindu nina ñii naan ko majorette la belle et voilée je m'engage flash icône kon maa lay nuyu di nuyu ce euh, public bu am mana bi ngay dalal tay euh, ci concours sañse spécial âge man mangi ngi tudd Oumy Ndour journaliste à la télévision nationale euh, RTS. soxna Oumy Ndour nan nga bëggoon di solo bi nga nekkee xalé bi ma nekkee xale nag dama bëggoon torop ay robe toute faite temps yooyu robe toute faite moom xale yépp moom lañ doon wër donc sama m'a aidé. daal ñu ci wutal yu bëri man ak sama rakk ki topp ci man di ami daanaka ñoo doon niroole man maa ko mag mais daanaka dañu tolloo woon donc dañ doon niroole bu baax ak sunu ay cousines ak sunu ay copines ñu defal la ay robe toute faite pour jàngi Corité, tabaski moom nga daan sol si si ngoon matinée bi nga sol sa sa wax wala sa Lagos wala sa bazin donc toute faite nekkoon na lu ma neex ba pour man habillement xalé la dal wuti nak léegi li may gis parce que man léegi damay seetlu ne xale yi dañ leen di solo trop yére mag te dafay teel. hijab moy ce style léegi nan la la diké euh, je vous avoue que dama teel a donc ma ngi commencé mou commencé fowee muuraay mou nané danaka bobu ma ngi woon euh, sixième e commencé muuru tuuti mais munu ma woon ne muuraay bu bu permanent la woon donc ce qui des fois des fois ma Dindiko, mais en classe de quatrième vraiment là commencé de dëggantaan euh, top donc à ce moment là évidemment ça m'a daal di changer. donc commencé ça à yëre yu goudou, yu jot bye style influencé sa waaw de temps en temps nak, euh, may dox ci mbedd wala nit woote RTS wala <laughs> des fois nit ñëw ba fofu sax ne ma ah yow de yow dama mu ndax euh, dama gis né euh, dama gis yaangi mu muuru yaa présenté journal télévisé moo tax mu mu inspiré ma mais man damay né lolu rek doyul aussi mu ray dafa dafa nek un style de vie bo xamné dafa ëmb lu bëri man tooguma rek gis né Fatou dafa muuru ma dem muuru voilà maintenant man damay né sas bu mag lañu tek ci sama épaule quand on me dit que dañu muuru ndax man ma ne est-ce que li li li warloo sama diganté ak def bay inspiré donc qui la d'al. nu pour moi, c'est une grosse charge qu'on me met sur les épaules bon voilà quelque part on est tous humains ça te fait un petit velours sur le cœur ah oui voilà man m'a inspiré qui mu mais pour moi, c'est une grosse responsabilité donc

ma ne waaw mais yow sa sa sama sama benn copine bu tudd Khady Racine Diop elle est à la RTS aussi comme ñun day ñëw teg greffage euh, wala cheveux naturel 300000 chaque fois dama koy ne Khady may ma sa may ma sa cheveux naturel bi ma jaay ko parce que bu ma ko jaayee bu ma demee euh, en Turquie conteneur foulard laa siy am donc ça vous donne les proportions euh, entre li foulard di jar ak. peut-être li yeneen jigéen ñi di utiliser gars yi dañu yaakaar ne dafa cher mais cherul xam nga xaw ma lan moo yo lan moo jafe Sénégal da waaye du tissu tissu beau, beau, léegi am nga mën nga def foulard matière beau, beau, couleur beau, beau, longueur beau, beau, largeur beau, beau. am na léegi li cher Sénégal mom moy ñaw maintenant je ne saurais vous dire lila, laa am ci ay tenue wala lii am parce que machallah, comme je travaille à la télé tenue yu en général du ko jënd. sunu ujaat ci léegi ñu ñibbisi ban message nga leen di eh, ni ma leen kay rek yak mom du farata. ku am loo loo xam ne yem yeme maay na mun nga ko sol mun na yiw rafet te du cher nga nga dugg si recevoir say nit ñaanal leen euh, ñëpp am jàmm macha allah donc daal maa ngi leen di jaajëfal yéen waa Pikini Production waa Sen TV. yaay euh, élément bi ñu jógee nii muy flash icône wane na mbirum muuraay. te léegi dama la bëggoon laaj noo gisee mode mode mode kii bi hijab bi nu mu évolution ak nu ñu koy defee nu muy rafetee lan ci sa sa opinion ak sa xalaat euh, astu euh, mode hijab bi euh, vraiment fimu mu nekk nii mi ngi jël allure bo xamné euh amna solo té ñëpp sétlu nañu ko. Mhm. des fois da ngay am gan sax mu ñëw mu né mais légui Sénégal ñëpp dañuy muuru. Mhm. té mouray bi wax dëgg yalla daf ci am ñoo xam ne dañ siy génne style yu rafet yoo xam ne ku ne bëgg na ko. tout man maa ngi nii man xam naa ne daal moom man tànte na ma daal. ndax muuraay bi non seulement di ngay yiw. <laughs> Uh-huh. foo. foo romb dinañ la respecté dinañ la jox benn cër bi. c'est important tout euh, par rapport ak ngay solo benn benn façon solo bi ak yenn décolleté yi. Uh-huh. da nga koy seetlu sax. Uh-huh. boo muuroo uh-huh. romb tu passes euh, presque inaperçu. si ñenn ñi nga xam ne doy tout à fait euh, par rapport nga sol yenn yu sa yaram di feeñ ak sa ay kiiw ak yooyu. xam nga. Mhm. ni ñu lay approché wala ni ñuy wax ak yow boo muuroo kenn du am fitu ñëw jege la. donc muuraay bi moom c'est très très très très important. d'accord waaw te man nag maa ngi maa maa ngi ñaan daal dugg ci muuraay bi. <laughs> waaye yow comme yow da ngay ñëw est-ce que am nga ay client clientes yoo xam ne euh, ñoom dañuy ñëw nga ñawal leen style hijab ba pare ñu am ne la dañu ko dañuy kolu waaw waaw waaw bien sûr. Mm-hmm. bari bari bari na ay ay euh, clientes yoo xam ne ay ibaadu lañu dañuy muuru. Mm-hmm. Mm-hmm. donc ñoom lépp loo leen di ñawal marche longue lay doon. ku fermé. Euh, ba pare du sol transparent. te robe yi buñ ko solee wala tay baasik yëpp dañ koy sol. mais niñ ñu koy defee dafay stylé ba nga xam ne. dafay rafet même boo muuruwul mën nga ko sañsee loolu sax laa bëgg ci loolu laa bëgg ñëw ci Amadou Diop parce que léegi da ngay gis koo xam ne sax du du ibaadu duy muuru mais day jékki-jékki rek benn jour daal di solu def ijab génn kon tendance la wala. <laughs> waaw nas loolu moom loolu la ñuy wax euh, tendance mode la euh, style vestimentaire la. Mhm. parce que ijab muuru. Mhm. ngay mhm. gis ni yëpp dafa bokk ci accessoire solu. Euh, tey jii nii boo demee asi mhm. wala nga dem ci pays arabique yi. Mhm. da ngay gis ne foofu mode dafa am tam mode dafa am ci lislaam tout am ci lislaam dañ ko war a rafetal dañ ko war a mhm. taaral dañ ko war a jekkal. mais tey jii bu ñu demee ba tey jii suñu mode tey tey muy ñëw euh, ñu gis ne ijaab daf ci dugg. tey jii nii dafa dafa wane ne sénégalais ñoom. dañu yemul ci seen culture rek. dañuy dem di épouser d'autres culture tey tamit rafet na aussi. comme li yaay yi wax léegi. Mhm. nga gis jigéen mu muuru. Mhm. boo gisee da nga koy respecté. Mhm. par rapport ak cër cër bi nga ko war a jox. kersa dina dox sa diggante ak moom. ba nga xamante ne yow. Euh, di nga di nga ko jox cër bu gëdd bu bokkul ak li nga xamante ne bu muuruwul tendance la aussi. Mhm. bo xamantene ne tey jii nii am lu mu apporte bu baax a baax ci suñu culture. ci mhm. suñu mode mode style vestimentaire. Mhm. xam nga mais euh, du dañuy ñaan rek mu doon lu continuer lu pérenniser. bu baax a baax parce que tamit euh, dafa baax euh di muur boppam. ci mhm. lislaam loolu lañ ñu sant. Mhm. xam nga bu ñu demee ba couturier yi tey jël ci seen wàll gis nga yaay yi tey ni mu génne. Mhm. ku ko gisaan da nga gaa gis karaw gi di daanu comme ni ngeen koy nii gis nga ni mu génne ni mu ko jàppee ni mu ko ni mu ko waxee léegi. loolu ma ci jaaxal c'est bien harmonisé. loolu ma ci waxee nag noonu la ko tenté. Uh-huh. ah loolu dinaa ko suivre ba xam ne na ko def. Euh, dafa am ñu may laaj que man vendredi yi damay muuru. maa ngi jàng de yaa ngi jàng waaw yàlla na gaaw mokk rek. nànk nànk rek. <laughs> bu spécial tissu bu spécial ku bëgg tissu bu spécial da dem ci Moustapha Cissé bu marché HLM bu am tudd Touba Sourate moom ci tissu spécial rek lay dox tissu xew dara am seddul nag Moustapha ana sa ëppukaay. waaw Nasu euh, sama ëppukaay yi ñu ngi nii euh, yii laa leen indil ci après tabaski bi. ay mbubu yu bees yoo xam ne dantel original yi nga xam ne peru cristal lañ ko defaree Touba Soura mi ngi nekk marché asalem 5 euh, moo leen doon indil ay tissu yu bees yoo xam ne ay arrivage yu bees la yoo xam ne nii après tabaski gi lañ leen ko indil pour ñuy xew ak ñi dem màkk ba ñëw ci kàttanu yàlla til bu bes la moom itam tilu cristal la bo xamne day dogu genn génn itam gis nako ni double finition la moom itam dafay doog a génn nii bii nii aussi cocaine bu wex la bo xamne ni nii itam ñuy def mariage wala ñi nga xamne ne dañoo dem màkk moom itam dina bax ci ñom bu bes la bo xamne ne moom itam boo ko wëree gis fenn fudul fi ci Touba Soura inshallah allah len ko bu bax moom itam ku ko def tay baas wala nga def ko tunit lu bari nga am ci kàttanu yalla lu bi ni Euh, vert Sénégal la bu dugal noir moom itam gis nga ko moom itam ku ko sol sa xew dantel la ku ko sol sa xew incha allah di nga am lu bari bu yàlla ñi képp ku fa ñëw dina xam ne yow mi yowee borom xew bi itam ku ko sol ci tàngaay bi lu bari ngay am ci kàttanu yàlla rafet na raar na cristal original bi lañ ko defaree. Touba Soura moom ñëpp xam nañ ko. foo ko laajte ci Sénégal xam nañ ko waxuñu ne bul jënd fenn mais bala ngaa jënd li gën a wóor ñëwal Touba Soura nga xool ba pare doog a dem feneen nga bii moom itam daantal dégradé bi la moom itam noir bu dugal beige la moom itam boo ko lu bari ngay am andil nañ leen fi ay dentelle yoo xam ne nii dentelle original la yoo xam ne peru cristal yu bees yi lañ ko defaree dentelle dégradé la yoo xam ne nii dafay doog a génn ku ko bëgg te bëgg sañse da ngay ñëw Touba Soura euh, waxuñu ne bu kenn dem fenn mais da ngay wër jënd bala nga jënd da ngay wër ba pare bo wëré nak ba pare ba gis li nga bëgg doog jënd ñun liñ lay wax lu leer la néewuñu la nga tepp tepp ñëw jënd suñu bitik mais bala nga jënd li gëna wër nga ñëw xol Touba Soura ba pare parce que am nañ ay yéré yu rar yo xamné ay yu rafet yu rar yo xamné yu yuy la ay dentelle yo xamné ni ñi ngi koy doog indi ci après tabaski bi pour képp ko xamné ni da nga am ngenté wala nga am tak wala nga am cérémonie bo xamné fonk nga ko bo ñëwé ci nu yalla dinañ la wan ay façon yo xamné ni fi rek nga koy ci nu yalla waaw eh, ñi ngi nekk euh, marché aslem 5 eh, suñu numéro cantine mi ngi nekk à 305 eh, suñu numéro téléphone mi ngi nekk 77 250 46 55 bi ci des mi ngi nekk 77 314 88 79 fii ci marché aslem waaw bu weesoo loolu nag suñ mbokki suñu client yëpp ñu ngi leen di nuyu te di leen sant di leen baalu àq di nuyu waa Mbour waa Touba waa Thiès waa Dakar waa Saint-Louis surtout Moustapha bi nga xam ne suñu client la mu ngi dëkk fële ba Bandar leen ziyaare ci tabaski gi ak Ndey Awa bi nekk nga Ngapour ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu te di leen xamal ne am nañ arrivage bu bees boo xam ne nii war nañoo ñëw seet si ko ku ci am xew rek war nga fi jaar nga ñëw seet si ko surtout ñi nga xam ne dañoo demoon màkk bay doog a ñëw aussi am nañ fi ay piisu yoo xam ne nii cocaïne la tudd ay piis yu weex yu rafet yoo xam ne nii dafay doog génn yi nga xam ne Touba Soro rek nga koy gisee ci kàttanu yàlla

reprendre leen modèle Eli Chap styliste libanais topp leen ma ñu dem ma liggéey ci loolu. jigéen daal di bu tayee nga mer subaa nga tubaabe jeune di ma gën soppale ko ñii di jigéen daal di boo xefee mu poosa nga xifi mu gërëfee am bët ami weeku du karaw nii jinne waañ week seen seem taj wi ak feema tàkkusaan tàkkusaan tay baas tay maam bëri mbubu nii jinne ndax la ndar kam waaye bu ñu leer nañ kaaru ba kaaru sañse ba mu baax dox dox bu ndaw yi wax wax ju sew ginne Maymuna ak ginne Mariama ginne Binto

benn la comme noonu booy xool robe bi dafa jël taay ci kaw mais bu ñëwee ba fii dafa blague wàcc am fii benn fant bu ndaw booy xool gis nga ko col bi gis nga ko comme noonu donc model bi lañ ma pour ma copier ko fii ci Sénégal pour wan leen rek léegi couture amatul frontière foo xalaat ci àdduna léegi tailleur yaa ngi ko di def lu nekk comme fu ñu mën model ci aduna buñu ñu ko indilee fi Sénégal yakarna naa mën nañ def sax pur bi mën nañ def pur bi parce que xam-xam baangi fi fi. euh dañoo démon ba euh ba Liban dem jëli fa benn styliste bo xamné ne euh duñ leen ko présenter xam ngeen euh, Elisab création lañu indi jox ko fi ben jeune sénégalais pour mu reprendre ko donc coupe coupe d'Asie lañ nek tay Oh, donc euh, lan moy lan impression. Euh, bon gis ne euh, liggéey na ci parce que copier nako parce que niko niko copier mais amna affaire des par exemple à bi. Mm-hmm. daf ko France. France d'accord mhm. gis ben modèle bi France bi ci souf loxo bi la ne d'accord waaw gis na mhm. aussi garniture bi. Mhm. li nga xamné ne moo fété ni ci kaw. ko comme ni ko ko waaw moom basam dafa yaatu te beulé dafa xawa sew. dafa sew waaw. gis ne France. par rapport ak euh, beneen bi am différence. mais bon man nag soppuma ma kuy copier modèle jàmbur teg teg. bëgguma ko. xanaa nga ñëw nga ne ma ñawal ma lii exactement. mais man mën naa xool ñaw ñaw bi neex ma nii. ma gis ci leneen. ma dëpp ko ñaw ko ba nga xam ne. ku ko xool du xam ne ñaw bale moom laa moom laa moom laa copier. mais euh, c'est c'est c'est bien. c'est bien parce que góorgóorlu na si def na ci li mu mën. waaw parce que boo gisee ñu indi rubrique boobu dañuy bëgg a wane ne carrément que ne lu ñuy def bitim réew ñu nit fii Sénégal bu ñu amee moyen mën nañ ko def dàquñu ñu ko daal parce que ñaw mën nañ ko ah Amadou Diop waaw nasu li nga wax dëgg la mhm. man damay delluwaat ci li ma daan wax rek démb ak barki démb ci émission yi fi am yëpp <laughs> reprendre reprendre <laughs> waaw recopier <laughs> yombul ndax li may wax rek mhm. fi modèle boo xamante ne ni ki koy créer tey jii mu ngi mel ni tey jii nga jox ma benn tay boo xamante ne yaay moo ko ñaw. Mm-hmm. toog ci atelier am. Mm-hmm. dagg ko ñaw ko perle ko nga ne ko sama atelier bëgg ma ma ma indi ma photo ne ma naa la ko reprendre la même chose. te am na ay ñaw yoo ñaw yoo xamante ne dafa am yu sew yu nekk ci biir. te borom rek ko moom. rek moo ko moom. donc nag recopier. Mm-hmm. reprendre yombul mais nag jéem na.

renfort d'amine lañ koy wax. Mm. or que y a des cols yoo xamante c'est spécialement pour les cols cols chemise. ñu koy wax renfort col. renfort col Voilà, dafa am renfort pour col. ak renfort pour broderie. moom la mu ngi jël renfort boo xamante ni. Mm-hmm. pour broderie la moom la coller yére bi renfort boobu noonu boo ko collé ci yére boo ko mm-hmm. fóotee këyit la. Mm-hmm. dafay dankaloo ci yére bi. Mm. ak par rapport ak matière bi mu utiliser après dina am problème suñ ko fóotee bu fekkonte ne nag renfort col chemise la jël. Mhm. mën naa la waatal ne yére bi dina dee bàyyi fa col bi. ah bon waaw du bouger parce que c'est fait spécialement pour la textile. Mhm. Ben, c'est fait pour la broderie de papier la. Mhm. voilà sinon nag. techniquement li yaay wax donc euh, reprendre yombul. pour nga la même chose. identique du yomb mais dans l'ensemble. il a essayé de reproduire le même modèle. et aussi bon dans l'ensemble ci présentation bi gis nañ mu présenté donc la finition bi nak lolu mom da doon fekk ñu ko fekk fi muy mhm. mais ma ngi ci invité ñeneen ñi nga xamantene ni mhm. euh ñoy euh, coupe nga xamantene mom lañuy la que ci finition yi. d'accord parce que damay gis rek. Mhm. Euh, ku dagg sa ñaw rek. yaa ngi dem automatiquement ci machine bi. di ñaw te ñun li xam de mooy boo daggee yére. li ngay boo paree ci yére bi tam li ngay mujj def mooy circulé. amul posal foofu. foofu laa koy yemal foofu da nga fay pose parce que xamul sama da ngay pose li am solo nga wax nii bal man li ma xam du ma ñaw kat mais ci milieu ak ak yi mu tudd damay ci ci eh, ak acteur la actrice de la mode la donc la plupart lu may gis ci ñaw yi dañuy ñaw ba pare doog a circulé. déedéet ñaw boo boo ñawee. parce que da ngay dem jëli sa ñaw ñu ne la xaaral pare na waaye circulé guñu ko. déedéet ah yaay loolu la ñuy wax de tout le temps. waaw de du loolu ñaw boo daggee li ngay njëkk def mooy surfler. Mm-hmm. boo surfler dem commencé ñaw. Mm-hmm. te am na des coins yoo xamante ne ci moment bi ngay ñëw sax da nga war demaat di surfler. Mm-hmm. surfler moo siy njëkk. surfler moo siy mujj. mais yéen ñàkk leen am wóorul de ah gars yi tàcc leen loolu waay. ma dollil la ci benn affaire. Uh-huh. wëñ bi ngay ñawee yére bi. Uh-huh. muy wëñ biy feeñ. Mm-hmm. moom la ñu war a surfler yére bi nga xamante ne yére bi. Mm-hmm. ni muy rafet ci biti. Mm-hmm. noonu lay rafete ci biir. ah, ah Amadou foog ñu jox la classe jox la big ak feuille ak kii nga ngay waxal ngay wax ak ngay wax ak ñeneen ñi ñooñu xam nañ seen bopp. kon ki def euh, coupe coupe coupe bi maa ngi koy encouragé di ko di ko wax ne na gën a góor góorgóorlu fii ay mag ma fi toog ñu ko ëpp expérience li ñu ko wax conseil yi ñu ko jox na ko jéem a jël jëfandikoo ko. jamono yi ñu toll benn ujaaj sonnatul ci indi bagage ak fret ndax fàllu kol fàllu boo gis fàllu boppam la fàllu ci lu yiw rek lay dox fàllu ndax li ma def nii baax na waaw na su noonu nga def baax na waaye soo dindoon greffage bi muur ba mu daj dina gën a baax ndax muuraay lañuy wax concours sañse nag buñ ne ku am sa bu rafet te di ibaat tey muuru buñ ko ñëwee ba mu rafet te amoo col doo mën a génn lu mu mën di doon ni nga ko mën di ñëw lu mu riche riche te amoo col bu rafet doo mën a génn moo tax tey ñëw indi leen col yoo xam te ni fatuwaa fakalla macha allah mënoo ko amee fenn lu dul fii ci établissement Fallou Col ci marché HLM 5 ci wet nekk ci wetu pharmacie Léopold Sédar Senghor ba tax na tey ji indi e ay xeeti col yoo xam te ni bu la ko gisee rek seen xol dina sedd di nga xam ne ñu ngi dox ci di bégal ibaat yi ak di leen di leen tey di ñu ngi ñëwoon pour dévoiler li nga xam ne mooy suñuy col yoo xam te ni pour Ibadou Rahmane surtout damay insister ci ñoom ñi nga xam ne dañuy muuru buñ ñu amante benn xel ñaar ci col yu rafet ak ci colu sañse lu ñu mën bëgg ci ay col nañ ñëw fii ci établissement Fallou Col ci marché HLM 5 ci wetu pharmacie le professeur Senghor bi te col bi ñu la jaay lu mu transparent transparent am ay xeetu jiitalukaay yoo xam te ni mën nga koo jiital sol ko te sa karaw du feeñ sa bopp du feeñ gis nga yi yi la ñuy woowee colu jekk gis nga ni ñu ko liggéeyee dantal lañ ko boole ak chiffon def ko deux tons en plus broderie ko xeeti couleur boo ci bëgg am na si lépp ay xeeti couleur yoo xam te ni mënoo ko amee fenn fenn fenn fi lu tudd établissement Fallou Coll gis nga lii yëpp ay xeeti couleur la sa muuraay bi nga muur nag sànq jekk na lool waaye boo ko defal moom xam naa ne fa tuwaar fakkaal macha allah dina gën kontaan gis nga yi xeeti col yu yi col nga xam ne bëgguñu col gàtt col yu ndaw te ay duñ bëgg col asli col coton la ñuy pour cent ba pare nekk 2 mètres 50 mesure lay doon du nekk mesure bu ndaw te du nekk asli aussi

diine génn lo ci man am na ñëw ci établissement Fallou col yu amul fenn am na fi yu rafet ci ndeg yu xéewale nag col coton yam estrage am na col yoo xamni ni coton 100 lay nek am dara dara dara dara ci policier tangay bi am ñoo xamni mom ñoo mu rolu tàng parce que dañoo allergie lay lii mom sox amé di nga ko mëna a muróo tàngaay en plus c'est bu ñewé di nga ko mën a parce que day téye sedd tangay bu ñewé dul dugg ñoo kol bi aussi yo machallah bép marié bu ko lom yaakaar naa sa xol dina sedd waaw léegi suñ ñëwee suñ jógee ci ibaad yi ñu ñëwee ci nga xam ne ñoo di ujaay euh, suñu bokk ujaay yi ñu wax sànq rek parce que fu euh, jógee maak ku ne di nga yittewoo mbaxana ñoo jox mbaxane mooy imaam yi koñ yi paa yi ne ci koñ ñëpp ko solo la mbaxana yaay ni tey mbaxana original lay nekk yoo xam ne du frenchieku def dara koo ko jox dina ko sax ay ati at bu la gisee xelam dina xam ne dëgg yàlla jonga ko lu am solo te day am couleur day am blanc gis nga macha allah gis nga couleur yi rafet na baax na ba tax ñoo ngi leen di sant di leen gërëm yéen waa Sen TV di rafetlu sa seet bi ngeen seetoo établissement Fallou Coll ci seen euh, liggéey bu rafet bi ngeen def di surtout di woo suñu mbokk ibaadu yi bu am xel ñaar ku ci am xew bëgg lu sañse lu rafet ñëwul fi ci établissement Fallou Coll ku ci am ujaaj ñëwul fi établissement Fallou Coll ku ci bëgg jàllaabi bu rafet abaayu góor yu rafet si jaare même ay brodé autriche euh, bazin lépp am na fi établissement Fallou Coll boolu ñëwee daal lépp lu rafet lu ngeen bëgg a gis ci lu bees nouveauté

bëccëg jaxasoo démb ba léegi sunuy bët di sama foto bu ñaaw bi sama yaramu nen bi génn na ci internet bi def ñu gàcce ci dëkk bi ma bëgg xar suuf si dugg ci soxna si yoo oh, soxna si yow yow yow bi

def ma bëggoon a tuuti mënoon na ma sodee moo gën ni ma weeree teg na samay doom gàcce teg na la gàcce xas ma bu la door ma bu la soobee waaye bul fay dogal ci sa sëy sëyal sëy bi sëyal sëy bi Seyal seybi yaw na seyal seybi Ya yaw siya Basamba di jademi Buasa man si don feki susi ma yox yoxi bu dee yaa ngi sëy say, ngi sëy yaa ngi sëy yaa say sëy say ngi sëy sëy bi sëyal sëy bi sëyal sëy युक्ति टाकू फोटो के जिक्र की सही सही भी यो सही यो यो यो सही सही भी सही सही भी सही सही भी ओ सोसी सही सही बस हम डी डी एम बी Say yes, say me, say yes, say me, oh. seyya ba samba bokkuma ci juróom-ñetti créateurs yi de créateurs yi seen bopp nag laa xamul ñoom nu ñuy wax xaar ma ñu déglu yaay yi lu muy waxati rek ah aywa yaay ñu ngi lay déglu. <laughs> <laughs> Euh, Nayasu euh, génn nañ ñu génn nañ kàcce de. Uh-huh. ah comme comme ni ma ko waxee woon. Uh-huh. Euh, ñoom ñëpp liggéey nañu. Uh-huh. wax dëgg yàlla defar nañ lu rafet créé nañu. mais comme ñëpp mënuñu génn. donc dañu dañu dañu génn ñi nga xam ne. war nañ war nañ mën a war nañ mën a continuer. Mhm. Euh, bokk ci euh, concours bi. Mhm. ñenn ñi tamit ñu di leen wax ne liggéey nañ lu rafet. et que ñu ñu ñu ñu gën a góorgóorlu. Mhm. Euh, bon léegi numéro numéro 1 bi. ki nga xam ne moom lañ tànn moo jiitu ci ñeent ñi. Tals broderie. collection 3 la présente. Le euh, numéro 2 mooy mhm. deuxième bi. Mhm. Euh, tips style. Mhm. Le troisième bi Mubara collection. Le euh, quatrième bi. gay et frère couture. donc Madeleine, félicitez-vous félicité bu

bu ñu topp décor bi rek. Mhm. ak dessin yi mhm. ak ak ak ak garniture yi. voilà mhm. ñu ci sopp sopp ñu ci soxla. base base bi. te muy originalité beeg créativité bi. ak coupe beeg bi. ñuy woon ak jeunes yi nga xamante ne ñoo nekk ci école de formation yi. xam ne concours bi pour ñoom la. jeunes yi nga xamante ne nekkuñ tam ci formation yi te nekk ci atelier yi di jàng. concours bi pour ñoom ndax fi ñu jëm sori na. te li ci war a génn ci saison yi di war a ñëw dina bëri lool. te ku ku mu rëcc nag ah xawma ci yow lu bëri. waaw Amadou euh, lim li ma lay ñaan rek mooy euh, ñii nga présélectionné nañ leen pour ñu pour ñu continuer ak ñoom lan nga leen di xelal ndax liggéey bi dul yomb nag fu mu ne noonu. ñoom seen kaamoo euh, gën a metti démb nee naa la. Mhm. ñi génn ñi ñëpp d'office la ñu am. Mhm. te ñu ngi war dem ci examen final bi. Mhm. ñi war a am bac. ak ñi war a doon major ak yu demee noonu. li ñu leen di wax mooy li nga waxoon léegi. créativité. originalité.

ci biir ak ci biti. xanaa di nga invité Horacio expert la de. waaw expert moom mooy moom mooy doon moom mooy moom moo ñuy diriger <laughs> ndax lu bam boobu ñun soxla nañ ko <laughs> mais nastu loolu Horacio di def. Uh-huh. je me rappelle bien. Uh-huh. bi may def sama formation en couture. Uh-huh. sama professeur technicien de l'habillement dafa daan yor loupe bu la joxaan ne la dawal la couture de cinq centimètres. double décimètre lay yor yor loupe bi di natt ndax dawal nga couture de cinq centimètres. am loolu moom ah. boo boo li nga def bu baaxul ñun ne la defe dañ demoon bu dañ ko tuddee madame defe ndax loo def lu baaxul. te jigéen la de waaw. <laughs> waaw jaajëf jigéen ñi ñun rek jigéen ah yaay ñun ñun moom. ah amuñu caaxaan ñoom ñun perfection nan perfectionniste rek la ñu. <laughs> Ah? j'espère que mi ngi lay seetaan. mu may seetaan fi ma koy ñaan gudd fan. donc maa ngi félicité ñi qualifié ba pare ñoo xam ne jotuñoo ñoo maa ngi leen di encouragé ne leen nañu yokk parce que jàng du wees nañu dem yokk xam-xam gi ndax nag ñaw yaatu na ku nekk danga mën am nga ci mën nga cee bay sa waar ku nuyoo di tàggoo maa ngi leen di balu àq te di leen baal àq di ñaan yàlla suñu borom mu may ñu fekkee déwin ak jàmm bañ fi teewaat ci beneen spécial retour de la Mecque di leen tàggu nag ak seen rubrique flash mbedd mi muy sañse yu gën a fës ci semaine yi ñu génn di leen jox rendez-vous dans 15 jours fii ci seen TV di fàttali sama bopp te di leen fàttali ni defar ba mu baax. mooy suñu baax. kii mooy Henriette Barbosa madame Thioune. mannequin bu ñaawul bi tay bas bis ci basin noir ak brodé 217 bi mu tek ci kawam yokk na taaram matrice RTS bu xariñ di Fatou Francisca Diafouné moy dagu mi ak basin riche tunique beige bu ñu brodé 217 Alissa fu mu reeron dem soirée rek moko taxa def robe de soirée bu le doré ak trainam bu jekk bi

Pour bi bas basse perlage plus style imprimé Mon boole ko style imprimé ak unique en coupe sirène. ah jaaraama Mopendeli, ancienne Miss Sénégal bi daa wuyoo turam moo robe longue noire et vert patché avec dentelle ak multicolore Sur la pen madame Cheikh choisit ziar grand grand boubou blanc. broderie 217 fil doore la nas cantaakun da koy nuru bésub anniversaire Viviane ba woon ca Grand Théâtre le roi du mbalax dafa doonoon le roi du solo bazin riche blanc fauxia la defoon def fil beige di doxantu